salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar ñu ñëw ak yéen ci ñetti xibaar yu soxal équipe national bu Sénégal le quotidien di journal bu mag nekk fii ci Sénégal moo ko génne tey jii li mu xam xamle moo di kat Aliou Cissé ajjuma incha allah buy def liste bi nga xam ne match yi Sénégal am ci weeru juin bi ñu jëm. loolee mi ngi soxal éliminatoire CAN 2023 di amee ca réewu Côte d'Ivoire match yooyee nag Sénégal dina am ay gan yu ñëw jàppale équipe nationale ci match yooyee ñu am ka njëkk nekk di Ndiaye moom ma nga ca Sheffield United ca championship bu Angleterre lay football keneen kii di Alpha Junko nekk ca équipe beewu Barcelone moom Alpha Junko sax miin na équipe nationale bu Sénégal keneen ki di Demba Seck moom ma nga ca Serie A ba ca Torino lay football moom excentré la bu mën la muy def waaye ñoom ñett ñooñee ñiy xaar bu dee ñaar ñii di Iliman Ndiaye moom dafa ñëw ngir remplacer Bamba Dieng mi nga xam ne dafa blessé bu dee kii di alfa Junko moom kii di Bouna Sarr nekk ca Bayero de Munich moom it dafa blessé moom lay ñëw wuutu ko fa bu dee kii di Demba Seck moom mosul ñëw équipe national bu Sénégal moom ak Elimane Ndiaye mosuñu football équipe national bu Sénégal waaye le quotidien li mu xam xamle moo di ñoom ñett ñooñeekat dinañu bokk ci list Aliou bi fële ca eMédia nag seen journaliste bii di Babacar Ndaw fay nekk journaliste bu mag ci groupe de presse bii di eMédia moom li mu xam xamle moo di ñetti ñooñee nag ñaar ñi moom bir na ma ne dinañu ñëw muy Alpha Junko ak Elimane Ndiaye ñoom ñaar Aliou Cissé dina leen woo list boobee nag li ko waral moo di ñaari match yi nga xam ne Sénégal war na koo football le 4 ak le 7 le 4 benn la ñuy football ak ci stade maître Abdoulaye Wade ba nekk ca jam Diamniadio la set nag équipe nationale bu Sénégal mooy dem ca Rwanda ca Kigali fekk fa waa Rwanda ñaari match yooyee moo tax Aliou Cissé di waajal ab liste kon nag Sénégal dina am ñetti gan bu ñu sukkandikoo ci le quotidien ak Babacar Ndaw fa ñetti gan yooyee mooy Alpha Junku Ilimaan Ndiaye ak Demba Seck ñoom ñett ñooñeekat bu ñu sukkandikoo ci le quotidien ak Babacar Ndaw Faye dinañu ñëw jàppale équipe national bu Sénégal gaa ñi loole moo di xibaar bi soxal équipe national bu Sénégal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah.